di di ñaanal yooyu ñuy dégg suñu borom euh, musal ñu waaye lu di xew rek nañ dellu ci yàlla rek yàlla ñuy dellu ci boppam rek ndax dañoo dem ba euh, sobental yu bëree bëri sobental diine yàq yi bari mooy yi bëri ah moom faaw nag yàlla dellu suñu rek ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آه، ياق دفا بري آه، تي آه، جيري جي اكي جيج اي من نانتي بولا جو جي صاح نك جو جي صاح نك تلو لب نين دوما ادم الله yàq yooyu nag bu demee nag ba am na foo xam ne bu fa tollee nag yàlla nag dana na nag yam leen ma fii nag yem leen ma fii bu boobaa nag waaye loolu muy loolu muy teg nit ñi jubluwu ci lu ñu dellu siwaat ci xam ne mooy mooy lépp xam ne nag ëppal nañ nag waaw boo xoolee euh, euh, maanaam yërmande ni mu xaw a néewee léegi ci rawatina ci ñi ëpp doole ñi ëpp doole ni ñàkk yërmande ci ñi gën a néew doole euh, daanaka li yàlla santaane da ngay gis léegi ñuy yoonal ay luwaa yu koy contrecarré yu koy yu ngir yu wuteeg moom maanaam lu yàlla ba dem na ba xam ne sax am na yoo xam ne xel xam nañ ne xel mu sell rafetlu ko waaye maanaam pour wuuteeg diine rek tax ñu di ko di ko di ko forcer di ci financer ay milliards ngir euh, maanaam diine dootu amati kàddu ci kaw suuf euh, kon loolu ak niñ kompaloo lislaam ànd ci ñëpp euh, yàq deru kii ba te yàq deru diine te lépp luy melaw diine rek ñu jàpp ne ñu ñu ñu sikkal ko kon looloot ah yàlla nag buñ ñu ëppalee nag dana ne leen yem yam leen a fii nag fi ne nii nag defe naa ne euh, la sëñ Mourtada daan wax naan euh, nañ jox diine nañ jox lislaam cëram bala koo jëlal boppam daa mel ne dañ cee toll nag daa mel ne dañ cee toll Mhm. kon lu ci lu ci mën di xew rek dañ delloo suñ bopp ci yàlla te ñaan yàlla ñaan yàlla ku julli rek na nga ñaan yàlla yàlla musal la ci ndax bi waxoon na ne xassinu eh, amwaalakum bi zaka wa daawu mardakum mardaakum bi sadaqa wa aiddu lil balaa i duaa seen alal bu ngeen bëggee mu ñoŋ du am ay jéey du am ay tolof tolof dee leen génne asak dana barkeel te lu mel ni ay xeeti jéey ay sàcc ak ay lakk ak yu demee noonu doo mën na cee bañ a am bu ngeen amee ku tawat na ngeen koy faje te di ko génneel sarax waaye na ngeen na ngeen di waajale balaa ñaan kon balaa bu ngeen dégg te mooy lu mel ni loolu bàyyi ko woon siin ba bañ naan dugg na ci réew mi loolu balaa la mhm. ndax loolu moom tubaab yi nga xam ne jàpp nañ ñoo pi pexe fi mu ne jaaxal na leen lool kon loolu loolu balaa la te loolu euh, kon nag nañ delloo suñ bopp ci yàlla tuub tuub te ñaan yàlla musal ñu ci saa yu jullee daal képp ku képp ku julli daal na nga ñaan yàlla musal la ci te boo ko defee rek mën ngaa dal sa xel dalal sa xel mhm. kon yu baree bari daanaka aajowoo ko waaye nañ saa yu jullee rek ñaanal yàlla musal la ci yàlla moom mooy musal musle ku la ci yàlla musalee eh, dara dara mun tax mun tax mu agsi ci yow kon eh, yàllaa ko tegee eh, moo koy teg ku ko neex waaye yaat yàlla ku ko ñaan moo ne ku ko ñaan mu may la kon nañ ko ñaan te yonent bi waxoon nañ ne sallallahu alayhi wa sallam ne bu balaa bu balaa ñëwee na ko waajale ñaan kon kon loolu buñ ci tàyyi euh, xam ne yàlla rek ñu ci mën a musal kon yàlla nañ ci yàlla musal